ya saaya auzu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim doom naa bi eh? tos ñebe muy bud budi waaw di suus noonu naafeq yi noonu coin yi mais bàyyi collectif des jeunes de la Médina barki Maulana Cheikh Ibrahim Bañas si ma sama xol laa ko tibbee bàyyi yàlla laa leen laa leen di bàyyil yàlla fayal ma leen bu baax si barki yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi gis naa taxawaay bi bàyyi kontaan naa trop trop trop barki alxuraan ku lim juum quoi am coordonnateur Boubs Baye Fall Pam Pam Malick Bouba sa som si bàyyi sa du buur suñu jigéen yu baax yi faa wadd macha allah sama bàjjen sama tata lalla sama tons féroce bàyyi ku lim juum barki alxuraanul karim docteur Mbodj non docteur Mbodj bàyyi xoola yéen ñëpp baay yàlla ma leen yàlla fayal bu baax si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa trop si yéen barki alxuraan baay bu ma génnee baay saa waay xoola dama rus quoi ma leen gisee barki alxuraan ndax coono ma leen teg baay billaay wallaay wa talaay xam nga yéen dama jaaxale mais du kolosaar yi nii quoi barki alxuraan noonu la demee ñi seen ñi ñuy def jéem a faagaagal jaay doole yi sama fee nii chaud nii froid barki alxuraan mooy loolu dëgg rek yàlla yàlla defar lépp tamit ñu ndam quoi noonu la demee waaw parce que xam nga rek affaire bi jot na am affaire yu bëri yu si xew yoo xam ni incha allah nañ leen yëgal yëpp nu mu demee quoi.